asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew ci ay bërëb yu fasantikoo ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak te di leen baal àq di leen xamal ne nag ñoo ngi fii ci Daaru Minaan te jii di alxemes juróom-benn fan ci weeru juillet atum 2023 ci ndigalu li nga xam ne ni bàyyeekoo na ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké jëwriñi Xadim Rasoul jëm ci am di Fall moom Serigne Modou Mbenda jëwriñi maam Cheikh Ibrahima Fall ndigal nag leen lu dul bisub zikru boo xam ne nii sëriñ bi ni mu ko defee woon daaw jéeg noonu la ko yeesalaat ren ji mu nekk bis boo xam ne nii lu tollook fukki waxtu ak ñaar dañu fas yéene saxal baatub laa ilaha illallah baatub laa ilaha illallah nag buñ ko déggee ci zikr xel yëpp day daal di dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall loolu moo tax nag xam ngeen ne bi juróom-ñetti waxtu jotee ci suba gi ci lañ ko daal di tàmbali ci biir ci ay sappe yu fasanti ko waaye li ci gën a yéeme benn sappe dong la doon maanaam benn dëbbe yenn dëbbekat dong la doon waaye fu nit nekk ci sappe ci biir kër gi ba ba li wër jumaa ji ci ñoom ngay daal di euh, euh, jokku mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne ni lan mooy ñaareelu yoon bi sëriñ bi daal di koy sant ñi nga xam ne ñoo di Baye Fall yi loolu moo tax nag ci ndigalu xalif bi mboolem njabootu moom Cheikh Ibrahima Fall yi teew nañu fasanti ci ay wuntu kër yu yaato yaato ak cheikh si ñi ñëw jàpp ci liggéey bi ñi nekk ci zikr bi ñi nekk ci bernde yi ñi nekk ci kaaraanga gi loolu lépp nag ñu koy dund fii ci Touba Daaru Minnan mu war a dem nag ba juróom-ñetti waxtu ci ngoon gi mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne ni nii ngeen ko gisee ni ci buntu kër bi ci biir kër gi mu ngi fees dell kilifa yi ñu ngi ci biir Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu ngi ci biir waaye liggéey bi itam nos ko nos bu am solo boo xam ne nii ci wàllum xaral ak tas xabaar mbooleem jumtukaay yi nga xam ne nii góor yàlla yi yëngu ci yoonu murit te nekk ci wàllum communication multimédia andi nañ seen i jumtukaay andi nañ seen xam-xam andi nañ seen i jëmm ngir fas yéenee boole seen bopp def ko benn liggéey bi yaatu ndax loolu mooy sabab loolu mooy junj loolu mooy yéene loolu mooy ndigalu Sëriñ taxa mboole murit yi doon benn ci lépp lu ñu mën a doon ndax tool bi benn la muy toolub Serigne Touba Cheikh Ahmadou ba Khadim Rasoul waaye kenn mënta liggéeyal Serigne Touba nag te jaaroo ci buntu bi maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina loolu tax na nag tey jii ñu fas ànd ak yéen fii ci Touba Darou Minane lépp lu fi nekk rek ci ab liggéey aju ci ndigalu tëdd li ñun ànd ci ak yéen di ñaan daje ci ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci barkeb Mame Cheikh Ibrahima Fall jàmbaaram ja